amun kon sport ak gaañu ñoo ànd. ñoo ànd mhm. nga jóge ci Alain Ngalani. Mhm. war a bëri koo xamante ni tam beneen athlète la beneen sportif mhm. tey tey ni ngeen waaje woon Alain Ngalani ngeen waaje kii wala maanaam entraînement yi day dépendre si adversaire bi ngeen di am. waaw mais loolu coach nga ko waroon a laaj. ndax man moom dan ma defal ma def dan naan ma bàyyil ma bàyyi. waaw en tout daal ñu ngi entraîné. di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam. ki nga war a dajal nii est-ce que am nga yaakaar. yaakaar bien man moom Reug dafa yor benn mental boo xam ne tey jii ku muy nekkal rek. Mhm. ku muy dajal rek da naan danaan moom moo la man mhm. waaw parce que ba combat bi passé am na ñu jàpp ne am na ñu naan paa nga dajal. mais kii dafa mel ni mhm. kii moom moo gën a féete xale kooku. waaw mais xam nga tey jii. Euh, Sénégalais yi dañuy mooy li ma la wax rek. gis nga man dama ñëw rek doon poids lourd. ñi fa nekk. ñoom ñoo may mag. ndax lig ba boo xoolee maa fay gën a doon xale. ndax ñoom dañuy jaar lese. bala mhm. ñoo dem pois lourd il ñu am benn âge bi. isa moom la expliqué man nag damaa dem poids lourd loolay problème bi. Mhm. ndax maa war a gën a doon xale. ndax xale laa moo tax. Mhm. mais kon maanaam doom ñu mel ni euh, di yomb parce que. ñi nga war a dajale lépp ay champion lañ ñoo xamante ni tey. macha allah tey. liggéey bi pour yow lan la laaj. mais lu yomb amul si àdduna bi. lépp ay miti rek. waaw mm-hmm. lu yomb. Mm-hmm. non lu yomb moom amul ci àdduna bi. amul ci àdduna bi waaw. Mm-hmm. rawatina MMA nit ñi nag jàpp nañ ne est-ce que ab MMA bi du dem sa bëre bi. non du ànd handicapé sama bëre ndax euh, ku nekk ak staff. bi ma nekk staff bu wóor la. di profité di si nuyu Leyti. ak képp ku nekk sa staff bi rek maa lay nuyu. waaw loolu doonul dara ndax cent vingt kilos mën nga see bëre. Mhm. bombardier mhm. loolu du dara mënumaa yàqal dara sama live mhm. ñu gis keroog si journal bi ñu am ku ñu ñu ku ñu introsé mu wax si sa combat ñu wax ne sax am na combat yoo jot a bëre maanaam ay combat amateur la parce que maanaam tey Sénégal amagul club MMA ku ñu defee ah, amagul amagul amagul nu ñu ko fédération lan ngay wax ci loolu non loolu moom du ma si tontu waaw man léegi lan la ma wax liggéey am na yoo xam ne du man ma si tontu. di compétir waaw en tout cas sénégalais yi ñu ngi seen i bët. Hmm. la adduna ñu ngi bët di ma xool. di xool waaw dinañ xool kii amateur la wala professionnel la. waaw mais kooku di wax loolu moom sëñ bi dafa xamul luy MMA. ndax fi ma nekk. Hmm. ki ma gañe nii. Hmm. lu mu doon dégg ngeen nga xam nga ka. champion waaw kon am na yoo xam ne du ma si tontu quoi.